saaba ak Macha saaba moo ñu wan ginnaaw Macha mooñu ñu wan kanam bu écurie waalo ñoom ñaar ñëpp ci victoire la ñu jugee ñu ngi leew too ñoom ñaar Gibson production tuddee ko Pape Modou Mbaye rakk ci Modou Mbaye félicitation yàlla na la jik doomu HP gaay buñ ko tudee làmb dagan na Saba mooy ñu wan ginnaaw pied droit tànk ndeyjoor Mathieu pied gauche ñu ngi léewtoo ñoom ñaar nee na ñu tekk ñaari mbërëntaan lañu ñoom ñaar ñëpp ci ndam la ñu jugee ñoom ñaar ñëpp ci ndam la ñu jugee ñu ngi léewtoo ñoom ñaar round d'observation Saba mi ngi sànni da ngay woo ci xeex mais Mathieu mi ngi leen tekk ànd ak ñoom Papa Boy Djiné ñoom Ron ñoom Liiru ànd ak euh, Alioune Seye numéro 2 Mathieu moo wan kanam Saba yaa ngi bëreeg mbër bu doy waar yaa ngi bëreeg mbër bu seytaane yaa ngi bëreeg mbër bu bën a bëre arbitre assistant bi déplacé wu na Saba nee na tekk Saba waa lii moo ko jik tekk rek tekk rek ngay mën a def Mathieu gàtt saf la tëb dafa mën a bëre ñoom ñaar nee nañu teg round d'observation round d'observation ñoom ñaar Saba dóor na Mathieu def na benn déplacement latéralement côté ndeyjoor effacé dor bi waa loolu d'accord na c'est technique et c'est tactique Saba wàccaat na tuuti ba tolloog moom waaw Mathieu daa gàtt pigeon naaw nag ay pigeon ya dem nañ nag pigeon yi sànq ba tey naawuñu bi arbitre bi sifflé ba ñu commencé bëre la ñuy door a ximmaliku dañoo réeroon ximmaliku nañu pigeon yi dañoo réeroon ña ngay wër ñëwaat nañu Saba door na Saba mi ngi dox ci kawam Madio def na déplacement génn na fa mu taxawoon Madio sànni na waat benn gauche remplacé na saaba saaba ñëwaat na sur sa position sànni na Saba yootu Saba jël na tànk yaa rëpp na daanu nga Saba attention jeex na Saba Saba da ngaa réer Saba da ngaa fàtte concentration da ngaa concentration Mathieu trompé la waxoon naa la da nga war a concentré wu Mathieu ngaa ngi noonu ay eh waay sóoraale leen Mathieu waay ay eh waay sóoraale leen Mathieu waay ay eh waay Saba am na lu ko métti waay daa concentré wu ba ci biir déconcentré wu Saba danga nga waroon def ndànk